ni nga waxe sank sen euh, wuy si ci wote bi nga xamne mom la kuréel gi yor doxal gi ci frap wote ngir meuna jakarlo ak askan wi yëkkati ay jaglel len euh gannaaw bi ndeyaateeg euh, senegal muy constitution du senegal waxe lu leer jëm ci ñak meuna mën a nekkuk ñetteeluk la waxu bu Macky Sall muy troisième mandat yu tegaloo loolu tax ba nga xamante ni makki sàll mënul doon ab lawax maanaam ab candidat ci wote yi 2024 yi ñu jëm gannaaw ba ñu amee taxaw seetlu mu wan ñu ne jëf ak taxawaay yu Macky sàll boobu ba léegi dafay xàll jëm ci yóbbu ko mu doon ab lawax ñetteel yoon yu tegloo ngir doon jitum rew fi ci Senegal, muy ne yoo xamanteni day salfaañe atté rew mi manam loi yi donc c'est illégal ba paré itam yellul manam du lu légitime gannaaw bi nga xamanteni falna fal na bu yagul tabna na bu yagul njitu jeuwriñ muy premier ministre bo xamanteni ni xam nañ ko ci di kañ ñàkk yamale jëm ci li nga xamante moy ay yu njitu rew di am ci rew mi muy Amadou Ba yag ko deg mu yëkkatu ay kaddu te amal taxaway jëm ci ne kat li di ay yi ya nga xamanteni ya, ni gi daf ne ñaar ci la yem ngir don jotum rew mom mu ne loolu andu ci ba pare itam gis ne kat ki di lu dakar muy prefet bi antul na gantul na li nga xamanteni ab pelloo jëm ci walu mbuk manam concert de musique bu warona am te li ko taxoon a jóg mooy ŋàññi loolu nga xamante ne mébét la bu Macky Sall am jëm ci doon ab la wax ci woote yi di ñëw te yoon may ko ko bi ñu seetloo ne coowal euh, ñetteelu la waxu mu am troisième jur na ci réew mi diggante atum 2011 ak 2012 ay coow yu baree baree bari ay mbii ay mbaaloo ba ay bakkan yu bari ëpp na fukk rot ci ab lay Wade té ñu gis na kat kembaru Afrique manam continent Afrique gi boy xol bari na ci réew yo xamanteni ciowal ñetteru la waxu taxna bakkani mawara frap ay yaq yu yaq yu bari juddo ca lool yëpp boko bolé mo wara frappe am taxaway bi jëm ci yi may lim bu ñëk bi li doore tay frappe dugg na ci xexu la waxu gogu jëm ci ne kat frap du mës nangu Macky Sall don ap la wax ci wote 2024 yi xex bobu nak ñu ko duppé Macky demal gor ca wax ja bu jeexee rek jeex di talal kurel itam te di woote bép kurel wala bép doomu réew bi bo xamanteni da ngay am yëngu bu jëm ci ar li di ndaya teg manam constitution bi ak xex lo xamanteni ni ñu àndandoo ñun ñëpp def benn say taxaw ànd ci xeex bi ñu duppee maki demal gor ca wax ja jeex na te bu jeexee rek jeex na te itam di xeex bii ñu tuddee maki demal gor ca wax ja jeex na la ëmb ñu dëxañ ko ci juróom-ñaari tomb tomb bu njëkk bi mooy taxaw temm aar ñàkk li nga xamante ni moom mooy ndeyaate gi maanaam constitution bi ba pare taxaw nag gàllankoor lépp lu jëm ci ñetteelu la wax goo xamante ni mooy mébétu Macky sàll te muy salfaañee àttey réew mi ba pare itam ñàkk a nekk loo xam ne lu yàlla la ñaareelu poñ bi mooy ànd ko ak askan wi nga xamante ni. ñoo ngi lab ci ay jafe-jafe jëm ci dund gi cher metti lool jëm ci ñi nga xam dañuy foqarti seen suufu maam seen suufu cosaan te teg ko rek ci jaay doole di ko jox ay doxandeem teg ko ci tamit ànd koog liggéeykat yi nga xamante ni dañ leen di jaay doole di leen xañ seen àq ak seen yelleef ñi ànd koog askan woowu noonu yépp jóg taxaw maki na dem gor ca wax ja li nga xam mooy ñetteelu poñ bi nag mooy ñi nga xamante ni Macky Sall ngir bëgg faagaagal képp koo xam ne nga am taxawaay boo xam ne jàpp na ne gàllankoor la ci moom jëm ci mébét bi mu am ngir doon ab lawax ci wote yi 2024 yi mu jël la toroxal la nëbb la jant bi ñu mën cee lim sunu xarit sunu doomu ndey sunu mbokk mbaar muy Cheikh Omar Diagne mën cee sunu xarit suñu doomu ndey suñu mbokk mbaar muy Karim Abdou Karim Gueye xurum xàq ak kii di Papito Kara ak kii di Ousmane Diagne ba ca Amidia mële ca Géejawaay ay tappale yu ñu taxawal ngir bëgg leen faagaagal tax ñu nëbb leen jant bi li nga xam ñeenteelu tomb bi mooy tegal ab naal maanaam programme boo xamante ni dafay jëm ci yi askanu Sénégal yeewi askanu Afrique tamit ci wàllu àq ak sañ-sañ ak démocratie muy loo xamante ni kat dañ koy ànd ak askan wi yépp juróomeeri tomb bi mooy fépp ci Sénégal gox yeeg goxaat yeeg koñ yeeg kër yeeg néegi yi danañ fa taxawal ay kuréel yoo xam dañuy taxaw temm takku ngir aar li nga xam mooy ndeyaate gi maanaam constitution bi ngir gàllankoor li nga xamanteni mom moy mebetu Macky Sall bi nga xamanteni yon nanguko ngor nanguku, dine diine nanguwu ko di Macky demal gor ca wax ja bu jexé rek jexna juroom tombe bi moy fep ci Sénégal ñi amal fa ay yëngu jëm ci gëna yé yee nit ñi ci li waral ñu wara taxaw tem ar li nga xamanteni mom moy gi waye itam taxaw tem xex ñettelu ko la waxagu Macky Sall gi nga yon yon nangu ko tay tam du lu yàlla juróom-ñaareelu tomb bi moy muju moy taxaw nak bes bu Macky Sall ubbee gémmiñam tuddu ne kat mom dafa bëgg doon ab wax ñettelu yon bu teglo ci watay 2024 yi ñi taxaw jamarlo ak mom xex ak mom xex ak ñi ka ci jappalé lu leen jaral ben mu jaral ñu ko fukk yile kàddu moom la kuréel gi yor doxal gi fii ci FRAPP muy commis euh, euh, secrétariat exécutif national yëkkati woon tey jëmale ko njëmméer li amal ko fii ci ndakaaru tey bésu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar di leen sant di leen gërëm